médecins yi ñu ci fekk ak autorités yi loolu lépp dinañ leen ko proposer incha allah duñ def dara lu ànd ci ak kan sama caméraman Babacar Bala sama caméraman Bala Bala let's go ñu dem ci biir xool. tey bi don de sang bi noonu la ko gisee. ma di ko rafetlu rek di wax ne comme suñu frère Omar Ka moo ñu fi invité pour ñu ñëw jàpp ci liggéey bi bien avant yëgoon nañ ko ñu ngi nekk ci promotion bi di ci jàpp ak yooyu. léegi lii nag initiative boobu am solo la quoi surtout xam na Sénégal accident yi ni mu bëree nit ñi di ñàkk deret ñu dem ba nga xamante ni kii bi fii fii ñuy déposé sang amul deret ama initié yi action bu rafet la quoi te lii mooy première édition bi j'espère que du yem fii daal chaque année dañ koy def di ko def di ko def te dañ ko ci accompagner daal waaw loolu daal moom rafetlu nañ ko trop. waaw noo gisee journée bi nit ñi ñëw nañ wala. nit ñi ñëw nañ ñi ñëw nañ. nit ñi ngi ñëw am na ñoo xam ne ñëw nañ mais xam nga léegi ak prêtement gàmm bi. nit ñi dañuy dañuy am tendance dem di liggéey bu ñu wàccee ñëw mais nit ñi moom dina ñëw moom ndax ñun def nañ promotion bi dina jàll na waaw te nit ñi ñuy woo di ñu wax ne xamal na ñoom dinañ ñëw waaw loolu tax ñu ñëw ñu sax. merci ah ok ñu ngi lay maa ngi leen di fay. waaw Amady ñu bëggoon xam lan moo la motiver nga jógee Fass Mbao ba fii pour maye ci deret. waaw bon motivation yi bëri na euh, bi ci njëkk mooy ñu organiser lii suma ay euh, grand lañu suma ay xarit lañu nekk ay jeunes ay acteurs de développement ñu bokk lu ñuy def. donc buñu amé activité bu mu mënti doon yoon la ma ñëw participer ci benen bi nga xamanteni moy moo moy topp mooy don de sang euh, yaakaar naa ni képp ku xam importance bi nekk don de sang fuñ la wo fu nekk rek war nga mëna déplacer wu ñëw lolu moo tax ma juggé face ma ñëw pour def euh, acte bi quoi muy maye deret. am di yow noo gisee initiative bi. wa initiative la yo xamni dañ koy saluer et di ñaan aussi que nit ñi diko diko diko reprendre diko def lu béré béré béré béré ndax bo sété banque de sang yi nga xamante mo nek ci réew mi pratiquement dañu dañu dañu pauvre quoi parce que amatuñu deret bu bëri donc bu féké ay jeunes ñi nga am initiative yu melni séni ay morom yenen jeunes yu nek ci yenen gox dañ euh, ko wara aussi copier diko def ndax euh, terme maye deret sax souvent dama nan nit ñi buñ ko wax ndax deret ji ngay joxé mën nga génn léegi ndog-ndog dal la deret jooju après ñew jëriñ la donc dénkaane la rek pour man looy denc la quelque part parce que mën na la sauver mën na sauver sa mbokk mën na sauver kenn koo nga xamante ni bi xam nga ko wala koo xamul quoi donc ay initiative la yoo xam ne vraiment war nañ di ko def lu bëree bëree bëri. merci beaucoup waaw mbokk yi ñu ngi fii ak ki nga xamante ni mooy maître Mbow ñu gis ko mu ñëw teew ci li nga xam ni mooy don de sang bi maître Mbow ñu ngi leen di. waaw ñu ngi leen di fay. waaw maître Mbow dañoo bëggoon xam lan moo waral sa teewaay tey ci journée don de sang bi nga xamante ni waa association ànd suqali sam sam ñoo ko organisé. waaw euh, tey dama teew fii pour euh, maye sama deret ndax euh, comme ni ko ñëpp xamee deret nee nañu c' est un acte citoyen un acte citoyen maye moom loo xam la war daal ndax euh, lu jaadu la ñenn ñi sax dañuy wax ne dafa waroon nekk lu obligatoire ndax ginnaaw ñëpp d' nañ ko ni maye deret mën naa sauver nit koo xam dafa naroon loru kon jàpp naa ne ñëpp war nañ ko def lii moo waral kon ma teew fi pour maye sama deret léegi gis nañ ni yow maître nga ñoo nga may nga li nga xam ne mooy sa deret léegi yow ban gis-gis nga gis ci initiative waaw initiative moom mënuñu lu dul di ko rafetlu kon nag euh, association ànd suxali sam ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ndax euh, ay xale lañu yoo xam ne waaye seen loxo set na ndax ku am initiative bi ñu ne looy def nga ne damay woote journée maye deret kon yow yaa ngi xalaat ñeneen ñi waaye xalaatoo sa bopp te jàpp nañ ne sunu réew mi nag ngir ñu mën koo tabax il faut que ndaw yi di xalaat ñëpp waaye bàyyi di xalaat seen bopp kon ànd soxali sam-sam ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen encouragé itam di leen wax ne daal fu ñu mënti toll ñu ngi seen kanam ñu ngi seen ginnaaw ndax acte yu mel ni moom mënuñu lu rafetlu ko kon gëm naa ne nag acte bi ànd na ak seen slogan la voie du développement. monsieur ñu ngi lay nuyu. waaw asalaamaaleykum ah, maa ngi tudd Demba Diop nag Sane National Tension Euh, nekk assistant social foofu waaw tey ñu ngi ñëw fii ci quartier Sam-Sam fii si jàmm gën jag saa Sicap Mbao def fi donation ak euh, waa quartier bi donc euh, ñu ngi gis ni ko fan nii yëpp ñu ñi ñu ngi def seen action pour joxe sang parce que tey boo xoolee tey banque bi dafa am rush parce que ñu ñu ngi ko doon wax ci wàllu boobu naan sang dafa manqué dafa manqué mais rush la boo xam ne nii tey bu ñu sañoon ñëpp tey ñuy jub di farlu di maye parce que lu toll ni gàmm gi weeru gàmmu gi ñu bëri tey boo xoolee ñiy dem ci yoon bi waaw ñu ngi ñaan yàlla def fa jàmm waaye tey kenn ñaanu ko tey ñi nga xam ne tey ñooy accidenté ak yooyu au moins ñu leen mën a assister te it boo tey demande bi dafa bari parce que boo xoolee tey euh, xam ne ñoo nekk ci privé yi ak ñi nga xam ni tey par exemple ñoo nekk dans les hôpitaux tey boo xoolee tey demande bi dafa bari macha allah kon donc ñu ngi ñaan képp nga xam ni tey yow gis nga sunu kàddu tey gis nga tey ñi nga xam tey mooy waa jàmm gën si Kambaaw di kàcce sam-sam def lii ñu lay ñaax yow tamit nga def loolu yaa ngi dégg chaque fois di def ay activité yu mel di di woo di ñaax quartier bi ñoom ñu ñëw di may der parce que may der tey nekk loo xam ne acte noble la acte symbolique la képp kuy euh, sénégalais foo munti ne ci àdduna war nga ko mën a def parce que saa yoo ko defee rek yaa ngi dimbali sa mbokkum julit waxutuma sax yaa ngi dimbali sa mbokku aadama doomu aadama rawatina sa mbokku julit kon donc benn poche boo may sauver nga bakkan boo déggee loolu rek kon ñi nga ñaax ñu bare bare bare fépp fu ñu toll ñu bàyyi xel ci loolu waaw parce que don de sang tey nekk na loo xam tey waratuñ ko wax kenn képp nga xam ne tey di sa devoir la c'est un acte citoyen et civique da nga ko war a mën a def kon ñu ngi ñaax ñëpp ñëpp fépp fu ne ak bu déggee sama kàddu yi ñu ngi leen di ñaax fu ñu toll ñuy bàyyi xel ci lii bu baax xam ne lii acte bu noble ñu koy def salaam jërëjëf. bon monsieur quelques mots en français quel conseil donnez-vous à ceux qui refusent de donner du sang ou ceux qui ont peur de donner du sang. Ah, ma particularité, ceux qui ont peur, ce pas, pas parce qu'ils ont peur qu'ils ne veulent pas de l'essentiel, c'est un manque de communication respectif. Donc les cadres, de refus, on les comprend, parce que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de donner. Donc nous les exhortons et nous faisons une demande sociale à tous les gens qui, ont l'aspect de donner, de leur sang pour sauver des vies. Quand on dit don de sang, c'est pour sauver des vies. Donc chaque personne doit avoir l'autonomie et l'autonomie de pouvoir bien donner. Parce que c'est un acte noble qui doit servir pour tout un chacun. Donc les personnes ayant conscience de cela, ils doivent, ils doivent, prendre, ils doivent prendre part de cette action qui est symbolique et autonome. Donc nous demandons, c'est une demande sociale que nous faisons, que tout, tout un chacun ayant 18 ans jusqu'à l'infini et poser jusqu'à 50 euh, kilos à l'infini, de vouloir bien venir donner de leur sang pour sauver des vies et contribuer aussi à la demande sociale de la population. merci merci à vous. waaw mbokk yi ñu ngi taxaw monsieur Omar Ka président association l'association suqali Samsam. M. monsieur Omar ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay monsieur monsieur gis nañ ngeen jël initiative bi lan poussé pour ngeen jël je waaw d' euh, remercier Vision par rapport à saint taxawaay donc ñun association ànd suqali sam-sam euh, à travers les médias on a on a euh, entendu euh, que banque de sang bi dafa manqué deret en tant qu'association de développement ñun on a jugé nécessaire organiser don de sang pour permettre ñi nga xamante ne war nañoo mëna maye deret pour sauver ay vie. loolu ñu poussé pour ñu mëna maye deret mëna maye maye deret mënon nañ xam ba xam li da ngeen ci am ay partenaires yu ngeen ci andal wala. wa à part la CNTS amuñu benn partenaire bi nga xamante tay ñëw nañ pour jàppale ci lolu partenaire amuñu benn partenaire bi ñu jàppale ci initiative bi. waaw léegi bu dee génn nañ ci journée don de sang bi tey association bi moom nu mu demee. donc association ànd suqali Samsam dafa regroupé ay jeunes yi nga xam ñoom ñoo nekk ci fii ci Samsam environ Samsam mu ngi nekk ci commune Diamaguène Sicap Mbao alors tey dañoo ne dañoo xool ne Samsam bokk na ci zone bi nga xamante ne xëy na euh, initiative yu bëri dafay manqué ñun en tant que jeune en tant que responsable ñu ne dañuy dajaloo créer benn association pour œuvrer dans le développement euh, ci côté santé ci éducation sécurité et et sport. léegi yan appel ngay lancé yeneen association yi nga xam ñoo aux alentours. donc je ngi lancé association yi nekk aux alentours ñu fédéré nos forces pour mën a liggéeyal sunu gox muy Sam-Sam. yow initiative bi fii régler lay yem day non initiative bi d' abord am programme bi ñu organisé euh, le 1er et le 2 décembre muy consultation ophtalmo avec les Rich People bi nga xam dañ fiy ñëw pendant 24 48 euh, quarante huit heures dinañu may ay lunettes euh, donc ñu ngi lancer appel à toute la population Samsam et la commune de Diamaguène Sicap Mbao mën assister ci euh, consultation ophtalmo boobu. ok ñu lay remercier ñu ngi lay jaajëfal. mbokk yi li moy li nga xamanteni ni moom lañ leen jëleeloon ci fi ci centre polyvalent bu Samsam 1 ñi fi indi won nak moy association and suqali Samsam ñom ñoo organiser won fi ben journée don de sang waaw ñu ngi leen di remercier ci ànd bi ngeen ànd ñun te di leen jox rendez-vous à très bientôt sur la El Vision Média et nulle part ailleurs.